Diop oustaz Mor Thiam salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu Hadj Babacar delloo naa la nuyu bi ak ziara bi. jërëjëf oustaz ñu ànd ak yow ci yóbbalu bés bi. waaw Hadj Babacar yóbbal bi tey nag. dafay ñëw ci nit koo xamante ni kii dafa nekkoon fenn ba bëgg tuxu. peut-être appartement la bëgg wala beneen kër bu muy luye mu xaw jafe ci moom. day jël surat numéro 17. mooy suratul isra. aaya bu njëkk bi. aaya bu njëkk bi ci suuratul isra suura 17 moom lay jël commencé ko subhaana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladi baarakna xawlahu foofu lay yem mais loolu ma wax noonu daf koy baamtu bis bu nekk mu baamtu ko fanweeri yoon ak ñett fanweeri yoon ak ñett inchaa allahu taala bu koy def yàlla mën na dogal bala mo dem fukki fan ak juróom yàlla wan ko li mu yàlla defal ko ko mooy subhaana asra bi abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله حوله بليت خو فوف لي ديف mu baamtu loolu fanweer ak ñett incha allahu taala Hadj Babacar yàlla dina ko jàppale ba mu am appartement bi muy wër wala kër gi muy wër incha allah Hadj Babacar. jërëjëf Oustaz Mor.